الوسيلة يجدني عند ملك مقتدر كل ولي للجنان يقتدر يجدني عند ملك مقتدر كل سخيم للجنان يقتدر يجدني عند ملك مقتدر كل سعيد للجنان يقتدر يجدني عند ملك مقتدر كل ولي كل تحي كل سعيد للجنان يقتدر باخر بخدمة النبي أولياء مفيد نيليا كرمني الكريم والمكرم بجاه من هو النبي المكرم رضي الله والمختار وأنميت كليتي أستار من لم يوافقني يفي الذي أحب نفاه ربه هداني الهادي فلا أدل فمن يوافقني فلا يدل أني معه سوى رداء وأكبر بائلتان منه خير الزبر كتاب ربي رفيه أبدا بي كفاني الله من لم يعبده بسور فورا عزيز لا يريني جورا لي قلت بالعلوم والكتاب وبحديث li nga xamante ni moom lañ fi gis nii. waaw tey soxna Fatou Thioune bu soxna Fatou Thioune bu sëñ Saliou Thioune lañ ñëw pour toggal macha allah pour benn sëñ bi rek kontaan nañ ja ci bés bi lool jël bi mu ñu jël pour ñu toggal ko. kon salaamaaleykum yaay booy na nga def. maa ngi fi tur wi. Sodou Thioune waaw ci tënk rek eh, nga wax nu lii nga xam ne chaque année dañ koy amal bu ren bi naka la demee ni nga expliqué ñu tuuti vous êtes en direct sur Sénégo. na mu daan demee rek macha allah sëñ bi soxna si moo indi añam ci sangam. kan ci soxna si soxna Fatou bu Serigne Sall. mooy indi añam. ci sëriñam. ci sangam. yàgg di ko def. Euh, tubaar fakkaal la daal ñu ngi sant Serigne Saliou bu baax sant Serigne Mbaye Diop. defe naa moom moo nu avancé tuuti rek ñu jox ko mu wax salaam. jërëjëf salaamaaleykum. yaay booy nga jéggal ñu rek vous êtes en nga indi añ euh, ci tënk rek nga wax ñu jëf ji comme chaque année da def ren lan mooy innovation bi ci tënk rek. alhamdulilah macha allah ñu ngi sant yàlla di julli ci Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam sant Serigne sant Serigne Mbaye di ñaan Serigne Saliou ndigal ci yàlla na fi yàgg saa nekk woon. kon bismillah. waaw bésu màggal bi ñu ngi ciy sant yàlla di sant la Serigne Touba boromam. di ñaan yàlla nañ ko teewee déwén. di ñaan Serigne Saliou ndigal ci yàlla na fi yàgg saa nekk woon. ko mbokk taalibe yi. ñuy ñaan Serigne Touba dimbali ñu. Uhuh. ñu koy fekkee. di gën a am yéene ci màggalam bi ci barkeb Serigne Serigne barkeb Serigne Sall barkeb Cheikh kon yan yan ñoo nekkaat sunu kanam ci yeneen mberde yoo xamante ne ni ñu ngi koy xaar du jeex aw oh. oh. kon li lancement la di ko joxe tey ree oh. di comme ni ñu ko Serigne Bass ni ñu ko Serigne Béthio jàngalee yëpp a ngi ñëw dara du manqué incha allahu rabbi mu nekkoon soxna sëñ bi soxna Fatou Thioune nga xamante ne nii ci añ gu solo gu muy indil sëriñ bi chaque année mu di ko def donc ñu nekkoon ci présentation bi kon bokk yi di leen jaajëfal ñu wéy ak yéen rek ci ambiance voilà donc ñu continuer ak yéen voilà donc euh, voilà donc euh, sëriñ bi fàttali ma tur bi yaa ngi ànd rek sur Sénégal nga gën ma jàppale ci yëf yi waaw moom kii doon wax léegi mooy soxna Fat Thioune mhm. mooy ñaareel si sëriñ Saliou Thioune mhm. mooy ñaareelam waaw ah, kii nga jàkkaar lool mhm. mooy soxna Mané Thioune moom tamit bi awo Serigne Saliou moom tamit mooy def ziaram ñaar ñëpp waaw mooy def ziaram ne. tabarakallah waaw mooy def ziaram ne kon ñu continuer ambiance bi rek. en direct fii sur Sénégo voilà ñoom Ablaye jëlal ma image bu am solo gële ñaari soxna sëñ bi ñoom ñooy saafonte kii indi añ voilà donc loolu dafay am solo dafay rafet ana kii voilà ambiance bi mu ngi noonu en direct dafay dox di wéy fii ci jànnatul maxwa waa kër Cheikh Béthio Thioune ci kër xalifam sëriñ Saliou Ndigal Thioune nga xam ne soxna mm, ñaareel gi moo indi woon añ gi noonu soxna Faat Thioune Maane Thioune a ngi ne moom mooy aaw bi voilà. voilà kon ziar bi dafay continuer. voilà kon euh, ziar bi fii ci kër Serigne Saliou Ndigal Thioune xalifa Cheikh Béthio Thioune ci jannatul maxwa dafay dox di wéy jëwriñ defe naa ni ki yegg si nii kan la. kii mooy Soxna Mané Thioune. di euh, di aawoo Serigne Saliou Thioune. waaw moo nekk kon kii doon joxe añ bi kan la. kooku mooy Soxna Fat Thioune. di ñaareel si. si Serigne Saliou Thioune ndigal kon baax na kon mbokk yi mu mel noonu leeral yooyu dafay am solo ñu continuer ferveur ak effervescence su ziar bi fii ci jannatul waa ci waa kër Cheikh Béthio Thioune ci kër xalifam Serigne Saliou ndigal Thioune voilà kon bu mën nañ avancer rek Ablaye euh, jox euh, soxna si voilà. waaw sarax leen nga wax yaay booy même ñaari baat sax ndax lii dafa am solo euh, bés bi voilà donc. geste bi am na solo. aywa mënu ma bilaay wax mënu wax. Ah, kon baax na euh, laay ñu continuer rek euh, nga xamante ne ni euh, moom voilà sëñ bee ngi noonu di fatu sëñ bee ngi noonu di fatu Abdoulaye ñu voilà donc kon. bi mi ngi ci biir. ok kon